xibaar bu naqari rek la kii di défenseur latéral droit du Sénégal bi di Noah Fadiga daal di xamle ci réseau sociaux yi moom moomee sax nag nekk doom ci kii di Khalidou Fadiga nekkoon actuellement foofee ca Brest nag daal di nay xamle benn irrégularité bu ñu xam daal nañ koy détecté ci rythme cardiaque am loolee sax nag daal di tax commission médicale de la fédération française de football dal di rompre contrat ba nga xamante ne si nag ñoom ñoo ñee daal di nañ ko doon sékk nag moom moomee daal dinay def yenn ci ay test bi saison bi jeexee ca club ba nga xamante ne si moom la nekk di stade brestois 29 yooyu la test nag ñoo daal di révélé irrégularité bi nga xamante si nag moo am ci rythme cardiaque am wante nag daal dinay def yeneen i examen ak ki nga xamante si moo di professeur cardiologue Pedro Brugada ginnaaw test yooyee sax nag kii di professeur Brugada daf ko daal di autoriser rek mu dal di poursuivre li nga xamante ne si moo di carrière am ndax nag amul benn risque fédération française de football nag ñoom dañu daal di nanguwuñ sax loolee ba tax rek benn politique boo xamante ne daal nañ koy amal tuddee ko zéro tolérance loolu rek moo daal di tax rek ñoom moom ñu daal di koy licencier ca boobule football française moom sax mu ngay xam le nekk ni léegi joueur libre la dafay daal di sukkandiku rek ci autorisation bi nga xamante ne si professeur Bourgada daal na koy joxoon ndax moom mu ngay xam le rek ne loolee sax la gëm ndax nag dafay daal di poursuivre li nga xamante ne si moo di carrière am ci wàllu football wante passion bi nga xamante ne koy am ba tax rek muy wax moom mu ngi xam la rek ne pare na préparé wu na bu baax ngir saison bi nga xamante ne si moo di mu ngi ñëw ak équipe bu Lieven mu ngay xam la rek ne moom il se sent hyper bien teg ci mu ngi ci en forme wante mu ngi joxe mu ngi leen joxe rendez-vous très bientôt.